yàlla def na ma may xaritam itam mu am fu ma teg ma am fu ma ko teg daal di ma ne moom de man ku xam sëñ Mahamadan laa woon te sëñ Mahamadan ku ma jàppaloon boppam la ma jàppal ko sama bopp mu wax ni sëriñ Mahamadan moo waxoon sëriñ Mbàkke ne ko saa boo xamee ne yàlla jële yàlla sama liggéey mat na ma dem na nga fexe ba Cheikh Sidi Muxtaar jëkk a yëg ni bàyyi koo naa fi ba ko sëriñ Mahamadan ñëwee di ko wax loolu la ko wax loolu nag ak yëg mënu koo weesu mu wax ne nag yëg googee sëriñ Mamadou amoon ci moom nga xam ne ba mu koy mujj a gis booba yéen njaboot gi dafa ànd ak moog yéen a ànd wala ñenn ci yéen euh, ñi ngi ànd ak moom nee nag saa boo waaxoo wut si ko ba sëriñ Mamadou waaxoo wut si ko te am ñoom àndal ci njaboot bi yow itam saa boo jógee wut si ko bu bu xoolee seen njaboot googa ci sa gannaaw nee na xolam bi day sedd ndax xam na ni aw nga yoonu jaar fi sëriñ Mamadou jaaral te nee na sëriñ Mamadou day képp ku ko xam xam ni ab jullit la bu wér boo xam ne kenn amul loo ci werante képp koo xam itam xam ne as gor la su mën a muñ ndax kenn gisu ko fenn muy wëndeel képp ku ko xam itam xam ne ab liggéeykat la woon fii nu toog bëgg a liggéey moo ko fi indi ba mu sañc képp koo xam ne xam nga ko itam xam nga ne ku bëgg sëñ Tuubaa la woon ba du ko weranteeg dara ndax jenn ajjuma ju masoon am julli jiwul rek bañ sël sëñ Abdou Khadre sëlmalee daa wuti këram te loolu rek tàmpoo la ndax mën naa ne moo ko masaan di di fréquenté ci diine di fréquenté di fréquenté ba euh, kay kilifa ga xool gisu la musalmal wuti sa kër ngir ngir ngir ngir jàpp ni daa am lu la gàllankoor ba dikkoo defe naa déggatuñ ko fi ci keneen yooyu yëpp ay tampon la yu wane qualité yi nga xam ne sëñ Mamadou daf ko amoon Cheikh Sidi Moukhtar moo ko moo ko lime noonu dem moo wax ne ku am ngor la ku nangoo liggéey ku bëgg sëñ Touba la ku am diine mu ne ma yent yi fii nag néew na muy daje ci nit te yent yëf yooyu itam wax naa bu ci nekk firnde bi li ko wàll moo tax bi ma waxee loolu bi ma déggee sa jiili muy sant say muy muy cant cant goo xam ne say rakk lay sant say rakk ñoo ko yónni mu di la sant te sëñ bi wax loolu démb te man jëlaguma kàddu te mu wax loolu mu ne ci sama sama nopp te jëlaguma kàddu damaa daal di xam ne kon sëriñ bi la mu doon wax dëggal nañ ko te waxaguma ko ndax bu bu bu buñ gestu fu sëriñ bi xoolee seen leen ci sa gannaaw te taxut ñoom ñu wax ni euh, euh, am nañu mbégte ci yow loolu itam dana nu ko nangu rek waaye bu bu demee nii ci la ñu koy gën a nangu te yaakaar naa Sëriñ Tuubaa moom lépp lu nga xam ne mi koy wax nit du da ko koy wax ci bànneexam du da ko koy wax ci loo koy defal ndax loo koy defal am na ku la ëppale fuuf ku ko koy desal am na ku la gën a néewle lool te am yéene jëmmi boppam ja sax buñ ko nee faatul mu joxe bakkanam te bakkan a gën a foral kon na ñëpp xam ne lii Seex Si Muxtaar seereel ko sëñ Mahamadu nga nga nga toog fi mu toogoon mu seereel la ko dafa am moo tax ñu di la ko seereel waaye séeree luñ la ko ngir sa pénc bi séeree luñ la ko ngir sa dongo yi la wër ndax wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa kon kàddu yi foofu la du du mën a sori ndax li ñu bëggoon wax ñun wax waxu sëñ waxu sëñ bi dafa am solo ba yooyu mu wax noonu sëñ Maodo wax ko ci sëriñ Seex ci aw dox doxinam wax ni teg na tànkam fa mu ko tegoon wax ni saa ba mu mujjee gis sëñ Maam Mor mi ngi ànd ak lenn ci njaboot gi te fu mu séenee sëñ Cheikh day ànd ak njaboot gi loolu moom daanaka mën nañ cee bañ a teg dara ba déwén ndax doy na sëkk qualité eh, di di nuyu Assane Diop ak ñi fi teewal président ñëpp di leen yóbbante nuyoo ak sia ak ak ak nuyoo ak ñaan ak cant ci président noonu la ñu baaxoo fu ñu dajee ak koo xam ni dafa ñëw teewal sa état. ñu yëbbante ko nuyoo ak cant gu bàyyi ko ci sëriñ bi noonu noonu lañ ko baaxoo di ko defee at mu jot ndax sëriñ bi moom képp ku mu war a joxub sag dana la joxub sag moom ni mu toll rek lay jëfe ci nit ñi ku mu soob nag nga jëfe na nga toll waaye sëriñ bi moom ni mu toll mooy yëg ñëpp kon ah, ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp xanaa rek balaa ñuy jeexal xëy na ndénkaan yi moom sëriñ Cheikh dina ci egsi waaye ñun lañ ciy tàmbalee rek mooy dénk nit ñi ñu gëm yàlla dénk nit ñi ñu ñu ñu ragal yàlla dénk nit ñi ñu sàmm wutin wi dénk nit ñi ñu bañ a yàkkamti te xam ni mënoo yàkkamti ba jël sa wërsëgu morom litre ndox yi nga fi war a naan benn litre bu ci topp fu mu mate nga faatu noo yi nga war a nooy limité nañ ko compté nañ ko ba teg ko nee xaw ma xaw ma xaw ma plomé lañ koy wax xaw ma dara mënu caa tege mënoo ba dara tege ci fu noo yi mate nga faatu jéego yi nga war a jéggi di ko dox fu mu mate nga faatu ñam fi nga war a lekk nombre de kilo yi mesuré nañ ko ko teg ko ne fu mu mate nga faatu li nga fi war a xool fu mu mate nga faatu li nga fi war a dégg fu mu mate nga faatu bu fekkoon nga tibb mu jëm ci sa gémmiñ sax du yegg kon nag lu fi jar daw bay daanu man dama ko fee gis kon nañu nit ñi nañu ànd ak dal te doylu te nag gone yu tuuti yi nga xam ne dañu soog a jóg. xay na am ñii summi tuba yëkkat def yu kenn xamul ñooñu mën naa am na ci ñoraw waaye ñii soo ko jóg na ñëpp maase ci jàngal leen ci base bi yar leen jàngal leen ndax damay wax ni fi ne terrorisme bi ngay dégg yëpp ña nga xam ne ñoo koy def ñu mokkal alxuraan lañu ñu ñu ñu jàng ba nekk ingénieur am diplôme lañ mais kenn yaru leen ñu leen yaroon bañ xam seen bopp duñ taal kër jàmbur duñ taal marché jàmbur duñ at duñ wut seen diin seen lislaam yi bopp jeneen bu ñu leen yaroon bañ xam suñ bopp seen bopp ñu ko te Serigne Touba daf daan boole yar ak jàngale léegi nag da ngay jël sa doom yóbbu ko ci internat moo am fa ñetti at ñeenti at nga jàpp ci loxoom foo jëm yóbbu ko nit ñi mi ngi nii tari ba bu taree te yaruwul amul benn njëriñ bu taree te yaruwul benn njëriñ la amul parce que alxuraan dafa war a ànd ak yar te Serigne Touba noonu la daan def di yar di jàngale tàmbalee ko ci ñu tuut ñi ñuy dem nga xam ne ñooy réew bu ñu leen yaree jàngal leen xamal leen seen bopp rek lu problème waaye fi mu ne nit ku xamul boppam mën naa def lu ne da ngay da ngay topp ci ab oto léeg-léeg wala ngay dox ci dëkk bi ci ci biir dëkk bi gis koo xam ne tubéyam day summeeku mu mu mu di ko mu di ko woggante ba ay njiitlaay lam sol tilim ba ñuul kuk mu muy muy muy woggante tubéy tam nekk xam boppam moo tax mu di ko def loolu américain yi rappeurs yi américain yi koy def naqar wañ am ci seen maam yi ñu jëndoon yóbbu fii ca yóbbu ca Amérique ñu xam ne ay jaam lañu fa nit ñu ñuul lañu moomuñu réew ma naqar woowu ñu naqarloo ko gàddu ay rajo di di di di di rab ca mbedd ma seen tuba yi di sumeeku loola ñoom ñi ñi koy roy xamuñu cosaan la bu ñu xamoon cosaan la duñ ko roy ndax kuy naqar lu jàpp kuñ jàppoon sa maam ngay rob rajo ci mbedd di ko woy yow nga ñëw nii dangay dangay dangay ngay da ngay roy loolu ah? boo xamoon sa bopp doo ko roy te yooyu yëpp ci ñàkk guñ ñàkk yar nit ñi ci la bokk bu bu nekk yaree sa waa kër jàngal leen dëkk bi ñëpp yaru dëkk bi bu ko yaree kër jàngal leen rek dëkk bi ñëpp yaru bu ko dëkk yi ci Sénégal yëpp defee senegal ci boppam ñëpp yaru waaye fi ne booy xool référence foo koy wutee dangay gis tey jii ku toog ci télé mbaa ci rajo nit diwoo fi gën lu baax loo xam waxal ko ko ba nit ñi jàpp ni kii ak lem la bu subaa nga jóge fa dem ci keneen daal di nekk ma nekkoon dara baaxul ci moom diw mee baax ah? te yow ngay nit koo xam ni yaakaar nañ la ay diplôme yaakaar nañ la njàng yaakaar nañ la xam-xam yaakaar nañ la koo xam ne référence la ana référence référence mooy boo nee weex na tey bu subaa nga ni dafa xonq bu gannaaw subaa nga ni dafa ñuul da ngay jàkkaarloog ñoom ñu baaxal dara bu subaa ñu ñu toogaat fañ toogoon ni baaxul am na ci ñoo xam dañ koy def léeg-léeg sax ñu daal di leen tegal bande bañ ne woon baaxul te tey ñoo ne baax kooku xam nga du référence. kon Serigne tubaa ñun mooy suñu référence sa Serigne Touba mii suñu référence ak mag ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ak mag ñi nga xam ne ñoom la àndaloon démb ak bërki démb ñu mel ni sëñ ma Massamba mi nga xam ne mooy mel ni sëñ Mahamadan mi def lii kenn ku nekk xam na ne kooku référence la ki sëñ ci dëkk bii ka ko meññ jëleli naa ko ki sañ ci dëkk waaye ka ko meññ laa ne référence la jëleli naa nag kam meññ mu sañ ci dëkk Dakar moom du saf kaani mukk kaani du saf xorom mukk waaw kon nag ñoo ngi dénk nit ñi daal ñu roy ci Serigne Touba te xool ci te am taqwa te te nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey ci topp nag ci Serigne tubaa ndax Serigne Touba ku xool juróom-ñaari at yi nga xam ne am na ko ci àll bi li mu def ci géej gi ñun ren bi ñu demee Gabon bañ bëggee dem maa yombe toog nan douze heures de temps ci aéroport mënuñoo dem ndax ab lay te bañ fa yóbboo Serigne Touba léegi téeméeri at la nun nu bëgg faa dem ci avion mun na faa te bañ ko fa yóbbu ak léegi téeméeri at te béréb bañ ko yóbbuwoon bu ñu fa masaan teg ñu jël la das dañ ay raba fa ne yoo xam ne dañ lay far rek ñoom du amul sax naan dañ lay lekkat dañ lay nangam bu ñu la fa teg rek ñu ne la coppet te bañ fa tegee sëriñ bi sër du dara bañ ñëwee fa lañ ko fekkaat ah ku mel noonu ku ko am ak li mu jëmbat ci Sénégal bi yu bare bari nga di ko gis nii ah maanaa sëriñ Touba ak xam dañ lañ dëgg dëgg dëgg ak xam Sénégal da ko koo joxut Sénégal day weesu fii quoi. parce que parce que parce que développement bi gën a gaaw Serigne Touba moo ko doonoon ndax Serigne Touba daa fexe dafa fexe ba murit yëpp bëgganti xool màggalu Touba ni mu toll koo joggi bu bu sa bu la joggi woon ba sa tànk dagg bala nga koo wax dala naan sëñ bi mbaa gaañu te fekk gaañ nga ko moom développement bi gën a gaaw mooy xol yu ànd xol yu ànd yonente bi dañ ko ne lu gën ci nit mu ne xol ñu ne ko lu yées ci nit mu ne xol ñu ne ko lu tax mu ne bu xol baaxee lépp baax bu xol bonee lépp bon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant Serigne Cheikh bu baax di nuyu di nuyu Serigne Serigne Abdou Samad Mbacké bu baax wax dëgg yàlla di sama xarit di nit ku am taalibe mën naa koo seere ndax man duma ma seere loo xam ne xaw ma ko. bismillahi yu diine ak yu àdduna ñoo ngi leen di nuyu di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxol sëriñ Bara Mar mu tegal na ko ci xalif bu tedd ba muy sëriñ Sidi Moxtaar nuyul na ko santal na ci yëg gi ak yitte ji ak yitte woowu yi nun de wax dëgg yàlla dafa tabarakallaahu taalibi rekk lañu di koo xam ne dara suñu yitte lu dul sàkk fu ñuy sàkkoo ngërëmul sëriñ Touba rek loolu dong kuy sëriñ Touba suñu sañoon danañ am sa ngërëm loolu nga xam ne yàlla dogal na ko ci ñun tabarakallah moom nag muy koo xam ne dafa yomba xam nit lool te xam nit lool xamin wu wér woo xam ne képp koo ku mu gis xam na li nga làmboo ci sa biir dafa xam saay xam baati kon yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko te kàttan nañ ko yow it sëñ Cheikh ñu ngi lay sant bu baax ndax am nga yitte am nga yëg mission bi nga xam ne sëriñ bi teg na ko solo ko dara ci da ñëw fii ci Saloum genn guddi nga dem ci Njaago genn guddi nga dem ci Kajoor loolu yitte la yëg la fonk liñ la jox la te loolu mooy li am solo ndax sëriñ bi demul fenn ma nga fa fu ne am nañ soxla ci moom fu ne bëgg nañ koo gis bëgg nañoo gis ndawam fu ne ñu ko fay tudd kon bu la féetalee loolu xam nga ne dootoo noppalu waaye yow nangu ko te jëfe ko yal na la yàlla fay fa tabarakalaw préfet damay wax ne jataay bii tey jataayu école la dañ fi doon jàngee jataay bu baax la fa tabarakalaw yàgg na lool waaye nag am na njëriñ ndax li ko waral mooy bërëb bi dafay bërëb boo xam ne dafa sensible lool ci département bi ci région bi ñu nekk sax lu fi xew lu ne ñëpp dañ koy yëg dañ koy fonk dañ ciy wuy lépp lu fi nit waxee itam mel na ne yaa ngi ko wax ci région bi yëpp fa tabaarakallaahu kon leeral yi ngeen fi leeral am na solo lool fa tabaarakallaahu ñi ngi sant sëriñ Moustapha Massamba mi nga xam ne mooy xalifa Seex Massamba Mbacke di ko ñaanal yàlla kattanal ko te béral ko ba mottali mission bi nga xam ne moom la bëgg a di ko am yëg di ko am yitte bis bii mësula ñëw te dafay ñëw yandu fi fanaan fi ba suba mu doog a xëy dem kon ku fi yebalee taawam sëriñ Ahmadou dinañ sant bu baax yóbbante ko nuyoo ci moom yóbbante suñu siyaar ci moom yóbbante ko suñu ngërëm ci moom fa tabarakallah yal na yàlla ko te ko doole Sëriñ Tuuba njaboot Sëriñ Masamba yëpp ñëw nañ fi sëñ Abdou Xabir doomu Sëriñ Masamba fi la yenn démb sëriñ Maamoor sëñ Abdou ko fi waa kër sëñ Masamba waa sëñ Masamba yu jigéen ñëpp ñoom it seeni njaboot ñëw nañu fi teew nañu fi kon loolu doy na sëkk ci yëg doy na sëkk ci yittewu di sant kilifa yi nga xam ne yàlla dogal nañu bàyyi seen yitte ñëw fekk si bis te ñooñu muy njaboot sëriñ Tuubaa gi néew na koo ci xam ne amoo amul ku la fi teewal néew néew na lool fa tabaarakallah ñëpp am ñëw nañ ci mbaa ñu am ku leen fi ñëwal léegi la fi sëriñ Abdul Ahad moom sëñ cooy bu jógee bii sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir moo nu jiite fii tamit liggéey te dafa jaayante bëgg feek mu ngi koy man dinu jiite guddi googu gee loolu yéene ju réy la yitte ju réy la yoo xam ne noo ngi ci sant bu baax di ko ci sant bu baax di ko gërëm bu baax a baax kër sëriñ Massamba ni ma ko waxee kenn mànkiwul sëriñ Abdul Ahad ma nga nele doomi sëriñ Modou Faty Khary xam teewal na kër sëriñ Modou Faty amul genn kër goo xam ne amul mbooloo mu fa jóge di sant nag bu baax fa tabaarakallaahu ñi nga xam ne yàlla dogal na bis bii mu jaar ci seeni loxo te ñu jëf ci jëf yu rafet yu baax loolu mi ngi tàmbalee ci de bi ñu def fii ci Birkilane préfet jiitu ko taxaw ca taxawaay bu rafet wax foog mboolem ñi nga xam ne ñooy ay fonction ci département bi kenn ku ne jaayante dara lu mu a def loolee ñu waxoon leen ca man lépp def nañu ko ñoo ngi leen ciy bu baax ci gërëm bu baax ñu dem ci CRD bi gouverneur ba tabarakallahu démb la doon jéem di def service dafa dem retraite yàlla na ko yàlla yi defal tawféex defal ko xeewal wax naa ko démb ne loolu la fa kuy liggéey ku nekk di ñaan day ñaan dañ lay ñaanal yàlla na nga liggéey ba retraite kon moom def na ko te nit ku baax la ku jàppoon ci bis bi dafa kon ñoom ñi ngi leen di sant bu baax di sant sous préfet di sant mboolem chef de service yi nekk ci département bi ak yi nekk ci région yi fa tabaarakallaahu groupe baa ngi ni fanaan taxaw te xaar ndax coupure am ndax coupure bi amoon fi daaw daf leen naqari loolu metti leen ñu indi fi benn ko boo xam dañu na sekku bu dara amee rek mu man ko yëg la yitteel yoon wi ñu ñu yitteel lool ba tabarakallaahu nga xam ne ñi fi ñëw dañuy am kersa sax ci ñoom ah rattaxal nañu ko ba mu baax lool fa tabarakallaahu te loolu yëg la yitte moom itam fa tabarakallaahu loolu ñu ngi leen sant bu baax di ci sant bu baax itam ci ki leen jox ndigal muy muy njiitu réew mi di président de la moom it fa tabaarakallaahu yitteem ak yéegam ci dëkk bi lu nu xam la fa tabaarakallaahu ndax képp ku muy waxal ku nekk bu ngay wax sax man du ma wax seetu sëñ Masamba rek seetu noonu kooku yittewoo ak yëg te comme la seen lu mu sori sori xam na la te ni may xamee ni la xamee kilifa diine yëpp yàlla dafa dogal mu dox ci biir réew mi dem ca fu nekk ba gis ñëpp xam kilifa yëpp. loolu moo tax mu xam ni mu xamee mu xamee ni ñu loolu ñu ko ci bu baax di ko ci sant bu baax li nga xam ne léegi sëriñ Jiiri ubbi na ko fii ba mu indi leeral yi fi am yépp loolu mooy li nga xam ne rek moom lañuy ñuy wax leeral dafa am solo lool fa tabarakallah boo leeralee rek nit ñi xam waaye boo leeralul kenn du xam dafa dañuy wax ne réeroo am taxaw leeral ko nit ñi benn par benn par benn ba mu àgg ndax nit ñi ñoom it dañu àgg ci maturité boo xam ne lépp lu ñuy dégg dañ cee am xalaat dañ cee am gis-gis loolu mooy tax ñuy bëgg ñu gaaw leeral waaye man sama li ma gis li ma gëm mooy moom président de la république gis naa ne ku bëgg réew mi la ku am jiite ci réew mi la ba tax na defe naa lépp loo xam ne jël na ko bu dee mesure yu yokk jëme kanam la waaye du delloo boo gisee yitteem jëpp jëpp jëpp di réew guddi ak bëccëg fu nekk mu dem fa ngir réew kon da nga jàpp ni kii li nga xam ne mooy bëgg-bëgg mooy réew jëm kanam loolu nag mën na si ci sukkandiku ne boo amee xalaat ne lii laa bëgg ñu def ko dëgg la leer moo ci gën waaye ku ko gëmit da nga gëm ne luy defar réew rek lay man loolu mooy di ko jàpp sa ndax li nga xam ne mooy réforme bi li muy ñaar ñetti wóor na ku ko perte tam da ngay xam ne perte lu bari defar defar sa réew ak bëgg sa réew mën na la ko defal boobu benn yëpp nit ñi dañ koo umpale teeral bi moo baax koy bi koy un koy deux koy trois ba quatre ba cinq mbaa bu quinze amatul ñu def ba ñu xam ne nii la demee na ma ne ñu ko defee réeroo du am ñàkk waxtaan rek am loolu asal mi nga ko yóbbante président nga leeral ñëpp tabarakallah mais yabal kilifa yi na yabal ñu toog te assës moom yabal autorité yi leeral nit ñi lépp ba mu leer naññ ndax waaw ak déet rek moo fay waaw ak déet nag sëriñ Fallou daf na waaw da moo gën déet waa waaw moo gën déet waa loolu la waaye balaa nit ki ne waaw balaa nit ne waaw dafay fekk am yu wax waaw lu mu doon réere mën naa tax nit ki ne waaw mën naa naa tax nit ki ne déet fekk bëgg ko woon loolu kon jataay bi bu am solo la ndax gën na leeral nit ñi gën na leen xamal loo xam ne xamuñu ko woon kon sëriñ Jiiri mi nga xam ne moo ubbi boo bunt ñu ngi koy sant bu baax sëriñ Jiiri nag dafay nit koo xam ne li mu gëm rek lay wax li mu gëm xam ne lii la gëm moom rek lay wax moo tax noonu noonu lay waxee incha allah lu ci ne lan ca gëm la ci maam ak ñëpp ay taalibe lañu te moom it taalibe rek moo nekk ci moom loolu boo gisee ñoom jàpp ko téye ko loolu moo tax te ñu gis na itam pour réew pour département bi ñor la pour dëkk mbir bi laa ñor la dëkk yi ko kon ñu di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal ndam ci yëngatu yi muy yëngatu ba àgg ci foo xam ne dana gën a mën a dër ba gën a mën a dimbali population bi yàlla ko yàlla def ko yàlla di sant président ci délégation bi mu nu yebal naam dañuy wax ministre xale moo ñëw te wala nangam ministre dootu waaye noonu ministre bi mu nu di suñu xarit di suñu wëlal yàgg ak noonu lool depuis ci régime PS ba léegi ñu di ko xam taxawaayam yitteewoo fu ne fekk na ko ñëw na ba teel ndaw fekk na case santé bu fa ne moom ñu ko wax kon fa tabarakallahu xarit gi nekk seen diggante ku yaatu la ku wér la kon yebal gi ñu ko yebal la du asaan du mu du mu neex la du mu ñor la tabarakallahu niki noonu su nekk du sam di sama rak te doomi seen muur fàtte bari rek seen Abdul Ahad meen di ko xam ne moom itam ñun rek ko ñor bokk yi rek ñoo ko ñor waxtu wu ne daf may woo di ma xalaatal di ma wax lii di ma lu nekk lu baax lu nekk jikko yu baax yi nga xam ne moom la am ñuy sant président ci jël bi mu ko jël taf ko ci boppam daf ko ambassadeur et cetera loolu ñu ngi ciy gën jaaw di ci sant président loolu di ko ñaanal yàlla ko ci yàlla defal jàmm ci daraja islam kon loolu mooy délégation yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu ñëw fi li leen di ci des fa mu tàmbalee ba fi mu agsi fii dafa mel ni man maa ko jur xam nga fi mu jur maa ko topp sos ko ci déggoon si lañu ma doon ba mu dem ci àgg ñu bënn ñu def ci machine buy tourné di indi ndox ba ba ñu koy cëpp ne fa tabarakallah lépp sama loxo la jaar ba agsi lépp xam naa ba muy dox ba léegi ëpp na fanweeri at ak juróom benn pompe bii ci la mos ñuy jóge ñi nga xam hydraulique boo leen laajee dañ xam ne pompe fi boo doon seet dëkk réew mi léegi ba def ñaar mbaa bu wér bu dër mësul taxaw du ëpp juróomi fan yoo xam ne amul ndox lépp ci suñu loxo lay jaar dañuy def dañoo bañ dem am moteur am moteur boo xam ne dañ ko def secours mi ci taxaw bu bii baax dañuy teel rek moom ndax faat ndax béréb bi dafa amul ndox bu baax ndox mi fi ne moom

xëy na nag ni forage bi nga am na ñu ne ak yokk gi ñu bëgg a yokk forage yi mën tax mu gën a gën a bari te damaa gën ko ci yàlla ñu mën a ko tontu baax gannaaw bu loolu wee ni sant taalibe yi di leen gërëm bu baax leen sant bu baax ndax lépp yàlla ñoom ñëpp boo leen digalee ñoom ñëpp ay boo leen teree ñoom ñëpp ñu bàyyi ba tabaarakallahu koo xam ne sàggale na la loolu amoo bay te dara taxul ñu def ko yaakaaruñ ci genn bay pour fay suñu borom la fay suñu Tuubaa moom dong lañ ci yaakaar waaye yaakaar yooyu yëpp yaakaar nag dara du ca ndax dañuy wax ne Sëriñ Tuubaa ne ñëwewul tool dafa am bay kon képp koo xam ne moo tax ngay jëf ne wóor ne la nga sa jëf joonee du neen mukk ci àdduna du kon taalibe bi na yàlla fay leen ñi ngeen amee yitte amee ko yëg ci bés bi amee ko yëg ci njaboot bi amee ko yëg ci sëriñ Mahmoudane suñu xol seet na ci guy yi ndax ñun amuñu lenn lu dul sëriñ Mahmoudane lu nu am ci yoon bi moom mooy lu nu am ci àdduna moom moom mooy moo nu yar moo nu jàngal daf ko njaboot képp fa tabaarakallaahu ba kenn ku ne mënoo doxee lenn lu dul sëriñ Mahmoudane loolu la mënoo xam lenn lu dul sëriñ Mahmoudane xam nga boo koy xam nga ne mu laaxee xam nga li muy yendoo xam nga li muy gontoo bu mu xëyee kenn wala yeneen ñu koy ñun ñëpp kenn du ko teg si ba jant si kon kooku ku la may du may noonu mën a too fay yal na ko yàlla fay ci daraja islam amuñu nag lu Seex Masamba moom la utoon kenn am na ci moom cër boo xam ne kenn amu a ci seen Tuuba moom rek moo te loolu ñi def ci yoon xam nañu ko fa tabaarakallaahu loolu ñoo ko ñoo ngi ci am fierté bu baax a baax di ci di di di di bégee bu nekk sunu maam nekk sunu diggante ak sunu Tuuba yàlla na ko yàlla fayal ci barke bi sax gannaaw bu loolu wee jataay bi yàgg na te guddi na fi tabarakallah kon nuy ñaan nit ñi li ko seen si abdal la waxee léegi nañu def noonu nañu góorgóorlu nañu dal nañu am sago nañu teey

góor ñi jigéen mag ñi ak ndaw ñi defe naa fàttewuma kenn ñoo ngi gërëm ñi jàpp ci bés bi ba mu mel nii mu mel sëriñ Baye Soxna sëriñ Gakou ak Mamadou Ndiaye waasare Xaadimu Rasuul ak mboolem kilifa yi mel ne ñoom di nekk ci biir te kenn ku leen tudd ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax préfet ñuy ñaan sant ñuy bu Tuubaa Abdoulaye Ka ndax moom it fu ñu wootee bés délégation bi ñëw délégation bi ñu sëkk bi ngi di teew fi ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax di ko leeral yàlla yàlla ko yàlla defal tawfiq yàlla ko yàlla defal xeewal la muy yéene ci liggéey liggéey ci Tuubaa yàlla ko ci yàlla dimbale di sant meeru Birkilaan mi ngi nii Falilou Fall moo ngi toog muy taalibe Serigne Fall taalibe Serigne Fall nit ku baax nit ku ku liggéey ñoom kon moom ñaanal nga yàlla mën ko ndam ak daraja islam de de ñaanal ñëpp rek boolem ñu nekk ci école yi ñoom kat war a kii dafay dafay école boo xam ne ku yor la bu ñu ko waxee naa leeral mooy école boo xam ne gerte seen yitte yëpp mooy jàngale ak jàng te loolu dara dafa ko dugg rus bu ñu rus ñun ñii ci nekk.

il faut ñu moo tax fii li fi am résultat yi fi am daaw surtout daaw mu am am mu am résultat ñi fi am ci BFM tool boo xam ne bariwul bariwul ñu ma yooyu man day yeneen waaye wóor na a salaat ma kon loolu doon ci moderne bi nga xam ne tabarakallahu muy daara pamot bi nga xam ne wax nañ war na am fii te dox ci ba war a teg xeer bu ñu yàgg incha allah muy daara bi ñuy jàngale diine dafa jàngale alxuraan ba mokkal ko dafa yaare ni dafa jàngale tubaab dafa jàngale métti dafa jàngale lépp fa tabarak Allah ñu tabax ko tabax ko rafet boo xam ne dana tax ku ko gis dana ko xemmeem loolu lañ ci sant ne jaarale seen loolu ba agsi ci loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax loolu gën si gërëm ji ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala